dane isa tadayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubu aay boobu nu mu guddi yitte gi dopp yàlla da mu ye ñore ko noonu alquran yëpp bàqara sut bàqara yëpp aaya boobu sut aaya bi ñëwul di aayatu muhkama la ñëwul di xiis la ndax alquran juróom-ñeenti yëf rek ka dox ju ala innama alquranu tisata xurfin su unabbiikaha fi beyti saarin bila xalali xaraamun xalaalun muhkamun mutasabbixun basiirun nasiirun izzatun mazalu yelloo ko tax ay boo déglu benn la ci wii wit yooyu wit yooyu na alquran ci la rabba bu doon am kukk yelloo ko tax ay boo déglu benn la ci wii wit yooyu wit yooyu na alquran ci la rabba bu doon am kukk bu doon am kukk mu ñuy rabbe couleur ya juróom-ñetti couleur la couleur yi alquran bu doon lu ñuy ràbb mu dim sër ngay fa kukk yi di jaxase juróom-ñetti kukk lañ ko rabbee amul juróom-ñeent ya mooy xaraam araam muhkam mutasaddi bashir nazir izzatun xissatu mazal ay bii mu jël nag di wax diggante doon aadama ak morom ma tudd ci àjjanaan tudd ci rasulillahi tudd ci safaraan si ndax di wax diggante nit ak moroom ma ni ñu war a doxale ba mu sut ba mu sut su mu doon santaane aaya sut bu mu doon tere aaya ñor googu ko diggante doom aadama yi ñor ci la ñuy dégge ne amee na leen yërmande joo xam ne bu doxalee ñëpp a xëcc ndax fa mu mujjee ci lañ ko dégg wax naa leen sànq ne ñetti naafi la ñetti naafi la ci ji ci jaamu yàlla yi ñetti naafi la rek la ñu tunge mu ëpp yooyu seen farata foofu laa yemoon juróomi kooku si dafa wax ba muy dénkaane su ngeen lebentee te bind leen ko ngeen ko bind moo gën a wóor fi mu ne bu ma demoon ci jonn ne ko abal ma ñaari téeméer mu ne ma defal ma bon day daal wax ne alaaji wóoluwuma ma may wax ne alaaji damay dafa ne jenn wóoluwuma te loolu la yàlla wax bind leen li dox seen diggante bu leen ko tayalee bind lu mu tuuti tuuti bu leen ko tàyyee bind lu mu réy réy tayal ak tàyyi bokkul bu leen ko tàyyee bind ngir tuub ga bu leen ko tayale bind ngir bàyyi bind leen ko su ngeen di bind na seede toog écrivain bi téye këyitam borom koppar yi téye kopparam lebkat bay dicté nag kiy bind kiy lebalaate du dicté kiy lebay dicté bindal naggat seen abal na ma ñeen fukki dërëm ba weer yi ñëw dee yàlla ne yow moomu ma la may période ngay dicté te moomu la koppa ñu jubal bul dicté lu yées liñ la jox écrivain bi ñu toog di bind xar la màgget seen ngir bëgg fi lëf ëllëg bu mu tax nga bind lu ëppali la kii wax jékk ko ba bëgg mu pertit bu mu tax nga bind lu néew li la kii wax yow seedekat bi toogoon su ngeen tasee ba heure ak ñu ne la kaay wuy si wuy si soo àggee bul nëbba la nga xamoon waxe ko nan ko waxe woon ki moom bor bi nag ak kiñ ko ameel na la na nga fexe ba yàlla gënal leen ñooñu ñaar di dem di dem di desay ba ca génn ba ne su dat jotee ki amee woon jekkul ku ñu ameel kii na muñ ba kañ waxuñu ba weer bi dee ah waxuñu baat bi dee ba mu am kooku ñu abaloon maa ngi koy dénk mu gore ba bu jekkoo na delloo liñ ko joxoon mu ne nag ki doon fayee dikk si fekk waa ji amul luy farataam bàyyi ko ba mu am luy sunnaam sarax ko ko far ñee nag sarax soosu moo ëpp doole muñ ba mu am te sarax si moo di sunna si muñ ba mu amay farate non sax def si fa in kaana zu usra fa nadira ila al maysara loolu farata jaabaan bopp waaye moom jaajubaat ne waaye nag wa in tasa wa in tasadaqu fa xayrun lakum fa wa xayrun lakum kooku benn la sama waa ji ci naati la yi ëpp farata yool farata bi mooy muñal ko ba mu am mu fay la sunna si mooy na ko faf ko jël baalaar benn ak ban ñun ñi fi toog ñëpp fii nu toog nii nii ñuy julli sept heures dix timis amul kenn koo xam ne fii nu toog njàppal timis war na la fii nu toog ñun ñëpp amu ci ku njàppal timis war njàppal timis war laa wax de mu ngi lay waree bu timis jote mais boo ko dogalee jàppal léegi di ko xaar def nga sunn def sunna booboo gën nag ba toog ba waxtu yu jot ngay door a jàpp kooku ci sunna yu ëpp yool seen farata ci la dégg nga boobu de bi ci des rek mooy dajeeg jullit baa nga romb ko ne ko salaamaaleykum loolu nga ko wax sunna la wa aleykum salaamay farata waaye sa salaamualeykum jooju comme yaa jëkke li muy doon doon sunna moo ëpp yool wa aleykum salaam ja doon sa farata la yetta yooyu ngeen takk ko yetta la yoo xam ne sunna ba ëpp yool farata ba loolu ba tartib bismillah am na aaya bu ñuy nekk deux cent quatre-vingt-deux ca baqara xamkati alquran yi ne nañu benn aaya ëpp ko yaakaar ci ne yàlla dina jéggal jullit yëpp bu bés penca am ku ñoo ne lan faal nga xoolul saru ñoog lan faal da nga ko waroon a xool ñu ne ko fool xool mu ne aaye trente huit soo vérifié lan faal ba dem ci trente huit aaye nga fa boo xam ne sa aaye jooju li muy yaakaaru yaakaaru si musul jullit ñu joojaa ko gën a yaakaar ñu ne googaay gan mu ne yàlla wax na fa rasulullahi qul lilladina kafaru in yantahu yaxfir lakum makatab aywa trente-huit suuratul Anfaal yàlla ne na nabi waxal tooñkat yi lu tooñ gi métti métti bés bu ñu taxawee arrêté bàyyi tuuñ rek ma baal li ñu defoon yëpp qul lillazina kafaru in yantahu yaxfir lakum ma qad salaf wala ubaali ñu ne nag jullit ndéem am na tomb liimaan lu mu néew néew su kaasee nafsul lamaara ba ñëfsu nafsul lawaama dina jëfante baag ci nafsul mutmaxina bakkan yi ñett la kuma ubariu nafsiya anna nafsaha rabi su suratu mbërgaan yusuf bokkul ak laa uqsimu bi nafsi lawaama bi yowm alqiyaama wa laa uqsimu bi nafsi lawaama nafsu lawaama bokkul ak nag nafsu mun naay na xam nga ne alxaqalu wa namzu wa xawaa ñoo bokk lenn benn tur lay wut kenn tudd kenn ko tudd nafsu xawaa xaqalu ñoo bokk kenn ku tudd li tax tur yi safaanoo mooy ay jamono soo xamee ne bànneex fréquenté na la nga accueillir ko rentré ko ki ko dogale moo tudd nafsu bu fekkee yiwala fréquenté nga accueillir ko rentré ko kooku tudd xaqan wa cheytan moo la ñeenteel nafsu hawa alxaqanu cheytaanu kenn ku ne bagage ba mu indiwaale la bagage bay juyi ëllëg ka ko dogale tur woowa lañ koy jox mu ngi mel ni inna allaha yaamuru bil adli wal ihsan wa iitaa'i zil qurba wa yanhaa anil fahshaa'i wal munkar wal baxyi ya'izukum la'allakum tadakkaruun defe naa ca la ca la ca la ca la walit waxe woon la ko màkk jéppee woon mu ne kii li muy wax di waxi mbindeef ah ñu ne ko yow da nga bëgg a dem nga bëgg a dem rek mu ne wallaay bëggumaa dem waaye li ma dégg ëpp na jëm ëpp na jëm ñu mi def waxumaa ko jàngul mbooleem alquran ne nañu mën naa daje ci ñeenti baat yooyu di aaya boobu ma jàng li xam nga ñetti affaire yi dal nit ki tooñ sa bopp tooñ sa borom tooñ sa morom tooñ sa bopp tooñ sa morom tooñ sa borom am de loolu la yàlla saftale nag tooñ sa bopp foo fekk mu dal nit bànneex a ko yóbbe bànneex a ko yóbbe bànneex a la yóbbe nga tooñ sa bopp ba gaañ tooñ sa morom foo ko fekk mera yi tax mera lay attaqué ba nga tooñ sa morom tooñ sa borom nag beew koy waral beew wér gu yàgg go ànd ak mën-mën wa yanhaa anil fahshaa'i mooy tooñ sa bopp wal munkari mooy tooñ sa morom wal baxyi mooy tooñ sa borom ku ci ne dafa am sabab tooñ sa bopp moom bànneex la ko yóbbee tooñ sa morom mer la ko yóbbee baaxul la bi daana wax ne ku ci mer na nga noppi xam nga boo meree ba yenn mer nga na bi ne na bul waxat naka rek su la fekkee nga taxaw toogal su la fekkee nga toog tëddal baaxul mooy indil nit tooñ moroomam ma jam ko paaka ma dóor ko ma xob bépp bi ma kafin ko mais baax yi nag inna insaan leer xara amul lu ko waral araaw tax na doomu aadama yàlla ne ndax am waaye doomu aadama mi woon démb bew na xar a yaxsibu insan an lan yaqdir alay ahad nit dafa foo xaat ne kenn mënal tu ko dara xaat nitam démb mii ñu doon tett ci ëtt bi nitam démb mii doon raam di raf rafi ci suuf si ki doon jóg di terteri moo foo xaat ne kenn mënal tu ko dara ak pour pour rek jot na ati ati ponkal ñaari titre foncier am yee tax mu defee ne kenn mënatu ko def automobile am see tax képpar forcé la mu denc tax xaat mu foog ne kenn mënatu ko dara xanaa ay yaxsibu an lan yarahu ahad su ko foogee moo gàtt xel àllam naj'al lahu aynayni yawma jamrahu wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn ay nit a gaaw a ber inna insaana la yabqa daw na xarab lu ko ko yóbbee am raaxus sax na yëg gi mu yëg ne oppul ñàkkul xamul ne inna ila rabbika rujaa dinaa ko dab futti koog yi mu yor ba mu des loxo yi neen ma sa lox koy suuf sa loolu koy suuf ñi bi bàpp ñu wax ne dëbi dëbi nit moo di wama ubari nafsi anna nafsa lama rabbi sëy jigéen gune aalim aarif xaabit ñépp seen départ moo di nafs la amaara bakken bu lay digal lu bon rek mooy départ kal bi lu bon rek lu neex lu neex bakken lu noppale lu génne nit ci caa lu ko dugal ci ci ci ci ci ci mën-mën foofoy départ bi mais boo demee ba jéegañ masóor bi la yàlla dimbale di nga départ nag ci nafsu lamaara dem ci nafsu lawaama ndaa nga nag ci lawaama di critiquer nag sa bopp li ma defoon duni ñaaw na naa tuub naa fexe bu ma ca delluwaat fa ma demoon dootuma rek mukk la waxoon dootuma ko wax mukk nga commencé loolu nag kooku nafsu lawaama di nga tàbbi ci yëf waaye boo ci tàbbi nag yëg nga ne du nii boo yëgee commencé wéccu kulli la ci ne kafaru in yantahu yaxfir lakum maa qad salaf taayibu zanbin kaman laa zanba la wa man yamut wa lam yatub min zanbihi fa amruhu mufaridun li rabbi bàkkaar moom boo ko tuubee rek mel na dafa toog mu wax nag ne soo déparé ci nafsu lawaama critiqué di bañ su defee lu bon nga retourné ko ba bu yàggee bu dëgmalee lu bon teggal ko boppam passé nga léegi nafsu lamaara passé nafsu lawaama dem ci nafsu mutmaina nafsu mutmaina nag bul fàtte sama waa ji ne ñoom la yàlla wax ne yaa أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي بعبادي وادخلي جنتي. danañ ci yàlla yóbbu daraje rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw yow yaa ngi wax aaya bële deux cent quatre-vingt-deux ca Baqara di kanal maa ngi laa fàttali Anfaal quatre-vingt-huit am ku jóge ca làng ga ne yooyu kat gis naa lu ko ëpp doole ñu ne fan la mu ne rax bi ñu ne ca fan mu ne na nga dem seet aayay siis raat ñu ne lu fa am mu ne inna rabbaka la su maxfiratin li naasi ala zulmihim ah rax dee wax loolu yàlla ne na dooma njéggal la bu mu nar a jéggal nit ñi ñu mu koy jéggal ñe tooñoon lu mu leen di jéggal seeni tooñ amin amin fay am ku le ne eh man de wax dëgg yàlla loolu la yaakaaru na waaye gis naa bu ko gën a yaakaaru de ñu ne fan mu ne suuratul Israa yi quatre vingt quatre jàngal Israa rek ba dem aaya quatre vingt quatre nga gis la yàlla wax ñu ne waaw lu yàlla wax ca quatre vingt quatre mu ne xul kullun yaamilu ala saakilati facteur fii foofu laa daan wax ne ku dem àjjana ku ne daa fa fekk junne nit yoo xam ne ku ci ne la mu def ba dem àjjana bokkul ak la moroom ma def kon passé àjjana bari nay façon wa nawaa al ibadaati rifqan lil ibaad ci laaj ma ne am na fu mu ko waxee bokk na ci baax bi yàlla baaxi jaam yi façon biñ koy jaamoo mu def ko ay façon yi façon bañ koo def benn façon parce que bu ko defoon benn façon boo ko tëlee rek musiba daal la waaye ba mu ko defee ay façon yi façon boo tëree bii song bale boo tëree bii song bii boo tëree bii song bii boo ci song mu baax pour yow kooku bokk na ci xeeti yërmande am na ñu mën a biddanti lool waaye nag ñu naan dana joxe seen loxo aleel am ñu nay lool waaye ñu dàq fee julli am ñu mën a doxu bokk lool waaye itam du ñu joxe am ñoo xam ne ñii bari nañu xam-xam lool waaye amuñu laa biir kii nga tële bii dem ci bële boo tëlee bi dem ci bële gën yi meloo nag gën yi jëfin nag ku tëlee yëpp yëpp mënu la ci benn ndax dëgg yàlla ku jëfanteeg yooyu itam kenn du ko yem ah mënu laa teel a jóg mënu laa jëkki say jox joxe mënu laa wala ku yàqule mënu laa yërëm ku gaaju du dara mënu la dara dara dara ah qul kullun yaamilu ala shakilatihi ah kooku aaya la bu doy waar bu nekk ci suratu raadi fa suratu lisraa yi 84 waaye kat am na ku wax ne taaxa suratu taaxa 48 aaya ja benn aaya ëpp ko yërmande inna qad uhiya ilayya anna haadha ala man kasaba wa tawala ah Maxtaar boobu am na solo de man kat yàlla déy na ma bu yàgg ni duma yi li muy rëy rëy rëy ki ka ne doo yàlla lan ka nu jopp yoon tey lay dal inna qad uhiya ilayya ne anna haadha ala man kadaba wa tawala waaw ñun ñi fi toog ak ñu mel ni yéen ñëpp kat amu ci kenn koo xam ne am nga sikki sàkk ci bañ ne yàlla kenn la ah ñun ñëpp nangu lañu loolu am déet di jéemit santaane bi lu ñu mën ne na ne na wax nañ ko ba yàgg na ñi ñuy duma du ñooñu ñu ne noonu lànk laa wax doo fi yàlla duñu def dara ñooñu la wax inna qad uhiya ilayya anna azaba ala man kazaba wa tawalla am ko leen ne loolu yëpp dëgg la waaye dañoo defee ne da ngeen jotul a seet saar wu ñu wax nuur nuur سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون kooku daal kooku kooku daal nee na boo xoolaan aaya boobu la ca yàlla wax ci ngay xamee ne moo bëri yërmande benn góor bu baax bu ñu wax Ababacar Siddiq lañ fa tooñ tooñ yu métti ci gàttal tooñ yàlla xëri koy góor Sidi Abibacar àgg ak tooñ ga ca kaka tooñ ci ne ko teraanga ji ma la defal fàttali ci sama biir kër fataale sa yaay waaw ñu di ko wax mustaare muy doomi bàjjanam ci tuuma ju ñu teg doomam ju mu jur di Aïcha doxale ko diggéen ma ku ñu wax safwaan te rasul daan na wax ne ki ñuy tudd di dund sama jamono yi ngor rek laa xam ci moom mosula dugg sama kër te ñooy ànd mosuma génn bàyyi ko waaye waa jooju di mbokk si dee bi bëgg tudd mustaare dëkk ci biir kër gi moo gënoon a ñaawi wax wala si tawalla kibriya qul wa adabun ay ba Babacar yéga sekkari ba inna lazina jaa'u bil ufki usbatun minkum la tahsibuhu dharrun lakum bal huwa ghayrun lakum li kulli imrin min ma kasaba min al ithmi Ababacar daf ko ne comme yow lii nga ma taxawu maa la joxoon am trois dàq naa la dootuma la jox am trois maa daan jox sa say woy jur dund dootuma leen jox dund ci ku ñu tooñ yàlla dal ci kaw nag mais wala yaatali ulil fadli minkum wa sax ah an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin wal yaxfu wal yaxfu ala tuhibuna an yaxfira lahu lakum su borom ne ah du noonu ñi ma fexe ba ñu ëppale seen morom yi ñu daan leen dimbale bu ñu tëb di waat na dootuñu dimbalaate bu ñu waxee ne dañuy téye seen loxo dootuñu jox repas ñi ko amul woon nañ continuer ci ñu meloon na nañ dumóoyu te baalaate xanaa bëgguñu ma baal leen may boo wàccee ci xanaa bëgguñu ma baal leen Ababacar mu ci dal ne bëgg naa mu baal ma bëgg naa mu baal ma bëgg naa mu baal ma jëri waa ji delloo ko palaas bi wàññi heure yi tarawaay ya yokk solde ko kii kii ki ñu tontoon bi toll noonu nga bëgg a jëfante jëfan gi toll noonu keneen aar ne du noonu kooku am na yërmande kooku moom gaa yi ne nañu boobu aaya ki la ñu gën a gën a gën a jàpp waaye am na ku wax suratu suwar moom ka fa wax suratu sabay am na ko ca wax ne déedéet aaya bi ma gis ci sabay benn aaya melul waxal lu zaazi illa kaf ndax xalaat ngeen ne ëllëg dinaa fayante lu ñaaw lu dul ko ab yéefal bu ma ko def sama papa ndeysaan papa taf si yàlla ko yàlla yërëm yërëm jullit yëpp daan na wax ne ku fi santaane woon liggéey gaa yëpp ñëw tool nga gis ci benn waay buy béy mbéy mu ñaaw di dogg dugub ji loo ko ràññi ràññi bu añ bi ñëwee gin ko rusa wax ne li nga doon béy rafetul doo añ am de ndéem yow nit ki yaa jomba loolu ma sa yàlla kenn nañu yëngu rek nañ yëngu rek yàlla ne ne duma fayantoo lu lu jaaduwul ku dul ab yéefar waaye suratu sumar moom aaya 63 dafa wax ne yaa ibaadiyi lazina asrafoo laa taqnatu min rahmatillahi inna laa yaabiru sunuba jamia laqa 35 fa hal yuhliku ila alqawmi fasiqin wala xaasiroon wala zalimin laq suñu bàyyi sel bay di bii ma doon wax am na yetti man saa maxrabati waaye kat sooree wa ma asaabakum min musibatin fi ma kasabat aydikum yafu an kasir falan bi leen daan nag mooy wa doxaa wa leyli bu gàtt bii bi yàlla ne ne bi wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda bu bés pencaa dinaa la maye may ba nga ne ma doy na fekk waxula doy nga duma bàyyi téere yi nag ne nañu ne bi xam nañ ci moom yërmande ju toll ni du wax doy na mukk mukk kenn ci xeet bi ku doon jullit des balaa xalaat daal bunte àjjana lañ lañ koy ubbil mu wéeru ci xam nga bunte bi la ci wéeroo du ubbu mu wéeru ci naan duggaleel duggaleel duggaleel duggaleel duggaleel duggaleel duggaleel xalaat naa ne dina fa def sax wax duggaleel lu yàgg te kenn defu fa ko war a tee dugg mu door a wax doy na wala soo fa yu'tika rabbuka fa tarda tuuti fit loo yëngal lu mu doon jëm ci yàlla bu nekkee ci sa wet dootoo war a am leneen loo ragal doonte gisaloo kenn ñu ngi koy sant bu baax di sant ñëpp ñu dimbaliñ ci ñaan ñaanal ba ñu ngi di gërëm itam Mandiaye Fall mi nga xam ne moo leen ko sottandikul ba mu leer ba ngeen man ko déglu ñu ngi leen di gërëm ci déglu bi di leen ñaanal guddi jàmm wasalaam